kàddu gi ma yëkkati maa ngi ko yëkkati ci turu njabootu Serigne Mountakha gi Serigne Koussa Mbacké doomam mi ngi nii toog. Je parle au nom de la famille de Serigne Mountakha Mbacké en présence de son fils Serigne Koussa Ce mercredi matin, la presse a véhiculé une information. Elle parle de vol d'une somme de 130 millions et accuse même l'entourage du Khalife Serigne Mountakha Mbacké. Selon toujours la presse, cette somme a été versée comme adiya par le daïra de Burkina Faso. Je peux vous dire d'emblée que c'est de l'intox. C'est une fausse information. Cette année, le daïra de Burkina Faso jusqu'au moment où je vous parle remis de l'argent au khalife Serigne Mountakha Bassirou Mbacké en plus Serigne Mountakha Bassirou Mbacké depuis son accession au khilafa n'a jamais reçu une telle somme il faut que ces gens-là arrêtent de dire du mal sur l'entourage du khalife car ça pourrait avoir des conséquences néfastes Ici, il n'y a que des talibés dévoués qui travaillent pour le Khalif Serine Muntaha Mbake et pour le fondateur du mouridisme Serine Touba Khadim Rassol. Nous demandons aux journalistes de vérifier leurs informations avant de les diffuser. D'autres voix autorisées vont se prononcer sur cette question et vont même annoncer des mesures par rapport à cette information véhiculée à travers la presse. incha allahu taala te ni ma ko waxee woon yaakaar naa ne kàddu gu gën a gu gën a koowee sama kàddu dana jibaat ginnaaw ginnaaw sama kàddu gi loolu mooy li ñu bëgg leeral lépp ne li ñu wax dara amu ci